man la Baye Modou Gueye ànd falaat Macky Sall mouvement ànd falaat Macky Sall ñongi sante mbolo mi ñi fi tew ñep di am contentement di sante ñi andal ñi nga xam ñep ñongi adhéré ci biir mouvement bi suñ xol dafa sedd tay, ndax euh, depuis élection yi bi mu commencé ba légui ñu ngi won ci campagne yi euh, nek ci dëkk bi def porte à porte yaakar na liñ def ñep tek nañ seen bëtt ñun dañuy liggéey té duñ ci bolé suñ wax. yaakaar naa ñu nekk fii yëpp xam nañ mën nañoo seere liñ liggéey chaque jour suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñoo ngi woon ci dëkk bi di liggéeyal président bi président Macky Sall nag képp ku koy liggéeyal da ngay boole nopp ñun duñ coow duñ def lu ñuy xeebe lépp loo xamante ni nii sëñ bi tere na ko ci dëkk bi ñun moytoon moytoon na nag moom mësuñoo def dara loo xamante ni nii dañu ciy xeeb wala leneen. yaakaar naa ñi daje fii ñëpp boo leen xoolee ay kilifa lañ suñuy yaay lañu àndal ak suñuy mag ak suñuy rakk fii sën yi ñoo fi ëpp te amul lenn lu ñaaw loo xamante ne mas nañ koo def démb rek yaakaar naa liñ dem ci ay cérémonie mën na set xaw ma xaw ma huit démb kon ñun li ñu waroon def ci dëkk bi lépp def nañ ko dëkk bi nag dafa am lu fi nekk loo xamante ni waa dëkk bi war nañ cee yow bu baax a baax mooy nañ xam kan mooy defar dëkk bi ak ki nga xamante ni mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa nañ ko xam bu baax ñu bañ leen a nax gis nga li xew démb lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni nii képp kuy di murit am nga ci ruus te loolu mësu am ci Touba te ñu ko def waa kër Idriss Seck lañ Idriss Seck yow na ci dëkk bi def fi trois jours ay nitam ànd ak moom kilifa gu leen neex ñu yóbbu ko fa te kenn néewu leen dara te buñ neexoon li ñu def ñu def ko parce que ëpp ñu ñu fi te ñu ñu dafa dañuy sartoon dañuy dañuy dañuy jéem a sàmmanteeg li nga xam moom la sëñ bi di tere ci dëkk bi ñoom euh, premier premier ministre ñëw fi démb di gan suñ taxa ñëpp xam ni moom ci yoon wi la juddoo papaam ak yaayam juddoo ci yoon wi faatu ñu ful leen fii ci armeel Touba yi muy taalib suñ Basiiru bu yàgg yàgg démb mu ñëw fi siyaare ab sëriñam galas kaltum ànd ak ay nit dem ca kër sëñ ba fekk leen ci biir kër sëñ ba di di di leen fa yooxoo sëñ Muntaxa am lu ko lool te loolu dafa am ay kilifa yeneen yoo xamante ni ñoom lañ ko àndandool te loolu lu ñaaw la gis nga gis nga toroxal ak gan kilifa yi xam nañ Gallas Kaltoum mën nañ ko ci seet parce que gis nañ ko ci seede yi ñi ci des dégg nañ leen duñ cité koo xamante ni amuñ ci leer waaye moom am nañ lu ñu nañ ci la bokk ta dama yaakaar ni ku respecté sa papa da ngay respecté ko ak ganam ku respecté sa sëriñ ku respecté sa sëriñ da nga ko war a respecté ak ganam sëriñ bi bu amoon yaakaar naa ab siif bu fi ñëw di ko seet sax war nañ ko wormal rawat na koo xamante ni mën naa ne la ñoom ñii ñëpp moo la njëkk ci yoon wi Idriss Seck barki démb Ndiaye la fi ñëw te deful mës a defal dañ koy jël bu ko bëgg nañu waaye dara la defal Sëñ Tuubaa kii juddoo ci yoon wi di ab daaru minam yàgg fa nekk fa ña ko doon yuuxoo dëkk ñu daaru minam de dañoo digoo ci yeneen kër ñu indiscipliné ñoo xamante ne amuñu benn tekkiwun dara ci dëkk bi liñ bëgg nag ñun duñ leen ci fekk si mooy violence lañ bëgg te ñun dañoo yar ñun dañoo yar xam nga mbir mi kañ lay feeñ mm. non ñun ñun xoolal wallaahi Idriss Seck xoolal dana am lu ko naqari ci dëkk bi parce que ñu ko xoolal ñu ko war ñëpp ay tekkatu dil lañ ñooñu ñoo àndoon ak Ablaye Wade lekk ko ba mu jeex ànd ak Macky Sall lekk ko ba seen sa jeex fa ñu dem ci Idriss Seck ñun dañoo engagé wu gëm président Macky Sall di ko liggéeyal ci dëkk bi ah, di génn ah, suñu alal ah, génn suñu alal te nit ñi fi nekk ni joxuñu leen benn dërëm dañoo bëgg président fii ay jeunes doo nga fi nekk léegi ñu seetlu ko 2012 ba léegi yéen gagné woo leen fi bii nii mooy seen candidat non est-ce que yéen a ngi koy xaar non xam nga 2012 ba léegi président Macky Sall ma ngi ci juróom-ñetteelu élection moo nekk nii juróom-ñaari élection yi mas def yëpp da koo gagné kon ñun ñun non législatif da koo gagné du gagné Touba la gagné wut dama ne la juróom-ñetti élection la gagné waaw déglu juróom-ñetti élection la la mas a def juróom-ñaari élection bii mooy juróom-ñett ñaari législatif benn référendum ñaari local ak euh, présidentiel benn ak bii yëpp da koo mas a gagné sëñ tu dama ni xool sëñ Tuubaa ku mu àndul doo am dara mën ngaa nax waa dëkk bi kon waa dëkk bi ñun ñun ñu fi nekk ñun ñoo war a xoolaat ba xam ñun ñoo nekk ci yoon wala déet sëñ Tuubaa ab siif bu nekk ba sapon bu fa yéewoon jógewoon fii te xolam nekk sëñ Tuubaa lu mu bëgg dina ko am xam ñan ñoo ñan ñoo mënta am Nous euh, faire un bilan sur le travail que nous avons fait depuis quelques semaines je voulais juste aussi éclaircir que en tout cas nous avons euh, travaillé un travail très très très très remarquable ici à Touba parce que nous ici à Touba ce qui nous intéresse c'est la victoire du président Macky Sall au scrutin du 24 inchallah c'est ça qui nous intéresse je voulais aussi dire que on a travaillé avec nos propres moyens. Macky Sall ne nous a pas donné des moyens pour travailler. On a débloqué nos propres moyens. On a débloqué nos propres moyens pour travailler pour que le président Macky Sall soit réélu. Inch'Allah Rabbi. En tout cas, ça, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie euh, au fond du cœur. Je remercie tout le monde. Je remercie euh, un, un frère à moi, un entrepreneur aussi, qui s'est levé, qui se bat à chaque fois pour, euh, euh, le, que le président Macky soit réélu, Inch'Allah le 24 février, Inch'Allah.